سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه العالمين العاملين ورضي الله تعالى رضا لا سخط بعده أبدا عن شيخي وسيدي ومولاي أبي العباس سقانا الله من بحره بأعدم الأواني والكؤوس رضا شاملا كافة خلفائه إنسهم وجنهم ومقدميه وأهل مودته وأهل طريقته نفعنا الله بهم وعدنا معهم بجاههم وبجاه جدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبك داري سيد الحاج مالك سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dellusiwaat nanu ci sunu téere bi nu dooroon ak yéen muy faakihatu tullaab mbaa jaamiul maraam bu seex siydil xaaji malik radiallahu anhu tey war ci doon sunu jotaayu fukkeel bi ak ñeñeent bunt bi ñu am yéene dal ko tey moom la Seydil Xaaji Malik titré ni wa minha dikrul kalimatil musharrafa baada asri yawmil jumaa loolu mooy lan xadratul jumaa ak ay atteem lay bëgga leeral moom Seex Alxaaji Malik ci bile buntu ni minha bokk na ci lawazim yooyu nga xam ni moom laa la ni woon wallazimul wirdu kazal wazifa wa dhikru asri yawmil jum'ati nadifa wax naa la werd wax naa la wazifa bii ci desoon te mooy xadratul jumaa mu ni wa minha bokk na ci lawazim yooyu taalibib tiijan war taqoo di ko def dikrul kalima di tudd baat ba al musharrafa ba di bu ñu teddal ci kaw baat yépp muy baatu laa ilaha kañ la koy tudd baada asri yawmil jumaa gannaaw tàkkusaani bisub aljuma xanaa mooy نني حضر مامني وراعيا ذكرنا المعلوم في يوم جمعة تكن عليما ويقرأ الواحد بعد العصر في يوم جمعة بكل عصر كلمة لا إله إلا الله أو الله الله كليهما رووا كذلك البدءة بالإتمام والختم بالإفراد ذا اهتمام mam nee na waraayan na da ngay sàmmonteeg yow taribib tijaan mi sukk ci kanam muqaddam bi mu jox la tariqa bi waxoon na la lii kon sàmmonteel ak lii lii lu mu dikranaa sunu zikar woowu almaaluuma wa di wañu xam di ko def fi yawmi jumaatin ci bisub aljuma sàmmonte gi ak bi dana tax takun nga nekk alima di ki xam li xew <laughs> boo xamee li xew xadratul juma du la rëcci balaa bunt bee jeex dinaa la wax aslëf ci ngëneelam beneen dikr amul ngëneel gu tol ne bi xadratul jumaa am moo tax kii sàmmonteeg moom parce que da koo xam waaye ki koy sàggane parce que da xamul waraaci yen nag na ngay sàmmonteeg sunu zikar woowu ñu xamee ak defam fi yawmi jumaatin bisub aljuma sàmmoonte ga takkun dana tax nga doon alima ku xam alima ki yëg alima ki bàyyi xel ngëneel yi nekk ci jotaay boobu te moo di xadratul jumaati mam ni wa yaqra'u dana ca jàng alwaaxidu kenn ku ko bëgg a def baadal asri gannaaw tàkkusaan fi yawmi jumaatin bisub aljuma bi kulli asri ci jamono jummu mën doon ak fu la mëna fekk tey la aljuma gannaaw tàkkusaan jot na jàngal lii lan maam kilmata laa ilaha illa allah baatub laa ilaha aw wala nga jàng baatub allah allah kilayhima bum ci doon ci ñoom ñaar yooyu rawaw nettali nanu ko ñoom jàngalekat yi doon jàngale tariqa bi maam seydil xaaji malik radiyallahu anhu dafa njëkk jàngale ki bëgg xadara te fa muy xadara moom dong nga fa ne loolu tax mu ni wa yaqra'ul waaxidu kenn ku bëgg def sa xadara bàyyil ba gannaaw tàkkusaan bisub aljuma ak jamono jumu mën a doon ak fu mu la mën a fekk Janggal batub la ilaha illallah dana la wax ñaata nga ci jang ba nga jang batub allah allah dana la wax ñaata nga ci jang ñaari bat yoy bula bula bula bula bu nga bolé ko bula la nga bolé ko moy fi mu ni kadalika mala ma la ilaha illallah képp allah allah kep ni la ñi doon jàngale tariqa bi wax nañ ñaar yépp kazalika noona itam waxee nanu ni al bëdd mën nga tàmbale bil itmaami ci ba gën mat te mooy laa ilaha illa allah wal xatmu nga tëjee bil ifraadi ba gën a wéet te mooy allah allah dëhtimaami ngay boroomuk yitte Seex Al Malik ne yow mi xadara mën nga jël laa ilaha illa kese mbaa nga jël allah allah kese mbaa nga boole leen boo demee ba leen di boole nag njëkkee laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ba am ci lim ba jant bay jege ak so nga jël allah allah allah allah looloy alxatmu bil ifraadi nga tëjee allah allah ja dë timaami nga di ko def ak yitte def ak yitte nag bokkul ak di ko defee nii may gis ci sunu jàkk yi ak ci sunu jumaa yi di ko parax paraxé ba doto xam ñi allah lañuy wax wala ha ha lañuy wax te buñ koy tambalé day téy day neex waye dañu dem be ci biir dafa bar lol man lek lek ma hadra ci jakk jo xamni dañu wax ñenti allah man sama benn di doora daanu xam nga lola barna diko di ko def te kenn du xam li ngay wax lola kenn waxuko bu baat yee ruube maam sëriñ Hadi Touré waxoon na ko ca ndénkaaneem la bu ay sadday woyof te bu ay mbijjaan di des lii la wax moom Cheikhu Tijaani laa ilaha illa allahu laa ilaha illa laa ilaha laa ilaha boo koy yëkkati nga yëkkati ko boo koy wàccee nga wàccee ko Allah Allah Allah Allah boo ko yëkkati nga yëkkati ko boo koy wàccee nga wàccee ko waaye léeg-léeg man ma dem ci jumaa joj mbooloo ma ngay àndal di xadara nanuy xadara bokkut ak ni Cheikhu Tijaani waxoon bokkut ak ni tariqa bi jàngale woon bokku de kuy allah allah dem ba àgg ci allah allah loo wax du nii de te wëral jàkka yi du nii koy fekk nag doo ko fa mën a wax ndax yu bare waaye fii nga nekk moom di fi yaatal li téere yi wax sañ nga fay wax li téere yi wax xëy na ku ci jot bu jëfe jotee dana jëfe li ci téere yi waaye du roy li ci mbedd mi te wuuteeg li ci téere yi ngeen baal ma zikrullahi jarul rëg-rëg jarul xët-xët na ànd na diib na teey sa xol di ko teewlu sa roox di ko dund jarul jànkonteeg coono boo xam ne boo paree da ngay ñaq bay sit déedéet te loolu noonu jarul jànkonteeg yuuxu yoo xam ne boo paree sa baat bi dee déedéet seexal xaaji malik ni kon wa yaqra'u alwaaxidu kilmata la ilaha illa aw allah allah alfan na ko jàng junni yoon li sib miatin ba junni ak juróom benn téeméer bu gisee mu tuddee noonu nag li muy wax ndax mbooleem boroom xamxam yi doon tudd ab lim ci kii xadara yow kenn ñi ca gën tuuti lañu wax te tudd ab lim junni lañu wax ña ca gën a lu nu wax te tudd ab lim junneeg juróom benn téeméer lan wax mu tënkal la bi ci gën néew terminé la ko ca ba ci gën a bare ne la na jàng junni ba junni ak juróom benn téeméer kon diggante boobu loo fi def génnoo ña tuddoon ab lim seen lim ya ndax am na ñu ni junni rekk ca la bokk Muhammad ibn Abi Nasr moom nee na xadara ki koy def moom kese junni la ciy def junni boobu mën na ko def ci la ilaha illa allah comme mën na ko def ci allah allah comme mën na def fee ab lim fii ab lim bu boole ñaari lim am junni par exemple la ilaha illa allah juróomi téeméer allah allah juróomi téeméer junnee ngoog am na junni mbaa fay juróom ñetti téeméer fii ñaari téeméer nu ko séddalee ba am junni rekk baax na loolooy waxu mawlaana muhammad ibni abi foofu la maam Seydi Hadj Malick junj ni alfan li sittimi atin ba junni ak juróom benni téeméer am na ñu wax junni ak juróom benni téeméer junni ak juróom benn téeméer boobu nag boo demee ci ifaada al ahmadiya moom nga fa fekk tayib sufyaani nettali ko wax ni ki nga xam ni day xadara moom kese na ñaari baat yooyu ba am ci lim bu tolloog junni ak juróom benn téeméer am ci ñu wax ni junni ak ñaari téeméer junni ak ñaari téeméer boobu nag moo gën a siiw ndax sërif Muhammadunil Ghali boobu la doon def boobu la doon digle te woon naa la ci càllalaam la Seexul Xaaju Omar jële lu bari lu muy jëfandikoo ci tariqa bi waaye itam ci Seexul Xaaju Omar la jële moom maam Seexal Xaaji Malik te newon na la lépp tay bi luñ ci jëfëndiko lu wax yi bare bare bare bare bu jëfe jotee sid hajj Malik neena la cheikhul hajj Omar wax lay jëfe cheikhul hajj Omar nak sirif Sërif Muhammadunil ghali comme jinni ak ñaari témèr la def cheikhul hajj Omar jinne ak ñaari témèr la da def cheikhul hajj Malik neena jinne ak ñaari témèr lay def terewul ku def jinni baxna amna am ñu ko wax ku def junneeg juróom benn téeméer baax na am na ñu ko def loolooy alfan li sittimi atin loolu nag mooy kuy xadara yow kese gannaaw tàkku tàkkusaani aljuma jëlal sa kurus fexeel ba laa ilaha illallah wala allah allah am ci junni mbaa junneeg ñaari téeméer mbaa junneeg juróom benn téeméer dana la wax balaa buntu bee jeex yeneeni wax yu bokkut ak yett yi waaye yett yi moom dañoo xam seeni boroom xam fuñ leen di fekk wa taqra'u dana jàng nag xadratul jumaa bi jamaatun mbooloo wax naa la kenn koy xadara léegi mbooloo muy xadara ñoom ñaata lañ ciy jàng mu ne la wa taqra'u jamaatun buñ dee mbooloo moom dañuy jàng rek bi duuni àddin ci lu dul benn lim boo xam ne yuqra'u lees leen koy lu tënkaluñu leen benn lim yéen mbooloo mi mais daal àndandoo leen di zikar ñaari baat yi wala benn ci ñaari baat yi ba bi soo ngeen tëj jóg julli timis waaye kenn du leen ni lim sàngam ngeen di def wa taqra'u jamaatun buñ dee mbooloo moom zikar bi dañ koy def rekk bi duuni addin ci lu dul benn lim boo xam ni yuqra'u ci lees ko war a jàng moom lim booba loolu bàyyi ci xel mbooloo mi kenn tënkalu leen ab lim lim yi bañ koy tudd pour kiy xadara moom kepp lañu tuddal ab lim wala ay lim maam ni wadd tarabat min haahuna al aqwaalu lada shuyuuxi fa baxasan maa qaalu góor gi nee na wadd tarabat a baj baji na nag maanaam bare na lool min haahuna fii ñu toll ci masala mii al aqwaalu ay wax te mooy kuy xadara yow kenn ban lim ngaa def wax ya nag la da suyuuxi ca sëriñ sa la jógee ponkali tariqa bi fa baxasan gëstu jil sëriñ Muhammed Njaay maa lépp loo xam xaaloo ñoom sëriñ sa wax nañ ko ci masala mii nga ni ko maam man lu may gëstu yaa ma ni woon muxtasar bi ngay def te muy téere bi da nga ñu ciy tënk lépp loo xani lu tariixa bi jàngale la ab tiijaan war koo xam te xam nga sore xam nga jafe nga digoon ñu ni daanu ko tënkal andil nu ko ci bii buntu kon kay bul ma yabalaat ci benn téere maam naan maa seeti ko fa yow laa koy laaj ndeysaan waaye danga danga danga danga danga danga laajte faali ngoy ni la maa ngi nga ni ko maam fenn laa dul dem yow lay déglu nga wax ma lis ci war xam lépp maam ni la alfun faqat junni képp am nañu ko wax nee naa la mooy muhammad ibn abi nasr wa mi ataani ñaari téeméer itam tatt baani yooyu danañ topp lil alfi ci junni bii xanaa kon muy junni ak ñaari téeméer xawlu baadihim waxi ñenn nag la ca gaaña am na kon ñu wax mille deux cent nee naa la sërif Muhammadinil Ghali ca la bokk bilam tiyaan ci lu dul werante waaye ci lu dul lenn wax jooxani dañ ko wax waaye wérul وخيب وخيو ويرلا وخنا لا جوني اك تيمير مونيوتي افاده الاحمديه وخنا لا جوني كيب موي بو آه، محمد بن ابي النصر وخنا لا جوني اك نياري تيمير موي بو سيريف محمد بن الغالي يا مونيوتي تي واخ جا باري والبعض امنا صاح نيو خاني لم يحد اوتلوني كليم كي حضر يو كسي am na ci boroomi xam-xami tariqa bi ñoo xam ni même kooku utal luñ ko ab lim ni ñu ñàkkee wutal ab lim mbooloo mee toog di xadara ñoom it nii lanu ñàkkee wutal ab lim kii xadara moom dong te demul ci mbooloo ma wal baadu lam yaxudda am na ñooñ wutal luñu ko lim burniya mën naanu faxfir lana dunuba yaa xanaanu maam nee na naanu yow buur bi xéewalaa bi faxfir lana rek waaye jéggal ñu ak dunuba sunuy bàkkaar yaa xanaanu yow mii boroomuk ñeewante subhaanahu wa taala mbokk yi kon darusu tey bi li mu doon jàngale mooy xadratul jumaa benn ponk la ci ñetti ponki tariqa bi léeg nga dégg ñu ni la boo ci faatee ñett dog ci tariqa bi wax ju wér cëng la ndax daa bokk ci yi doge ci tariqa bi tarkul wir dil kulli bàyyi werd wi définitivement ku toog fukki fan ak juróom nag te mooy ñetti aljuma xadara woo yàgg ki bàyyi werd définitivement yéen a yam ndax booy laazim te doo wasifa doonagoo ab tiijaan buy wasifa te doo werd ab tiijaan booy werd di wasifa waaye doo xadara doonagoo ab tiijaan ñetti yëpp ngay boole moo tax ku ko faat ñetti aljuma amoo ngant defoo ko ci demoo ca mbooloo ma génn nga ci tarixa bi dangaa def benn ci ñett yi nga xam ne ku ko def bokkatoo te mooy bàyyi werd définitivement kon maa ngi ci soññaat sama bopp di ci soññaat tijaan ñépp aljuma ci ngoon nanu boole ci sunuy programme xadratul jumaa ku am ngant am ngant ba am ngantal dem ca mbooloo ma nga xadara ca sa kurus wax naa la lim yi ngay def lim boobu ngay def bu fekkee ni xate nga ba mel ne soxna Ndey Mareem Jóob xate na bëgg naa xadara te lim yii bu dee junni bi mënu ko def ndax làmmiñam barul junneeg ñaari téeméer waxee noppi junneeg juróomi téeméer wala juróom benn téeméer waxee noppi même ku mel noonu bum la tee xadara su boobaa yow jëlal masalam wal baadu lam yaxudda am na ñoo xam ne lii wutaluñ ko lim comme wutaluñ ko ab lim fexeel foo làq sa bopp fexeel foo sàcc sa bopp toog fa benn dix quinze nga def fa xadara la fa xaj nga doyloo ko te dem ci leneen loolu nag mooy bu dee lii moo fi sës sinon doo xadara waaye bu dee danga nga mën a dem ca mbooloo ma demal ca mbooloo ma mbooloo moo xam ne buñ ne aawudu buñ naan ah bala ñu àgg ca aawudu ga rasulullahi ni seef xadaratul jumaa bu nuy tàmbale rasulullahi di teew bu nuy tàmbale rasulullahi di teew loolu dara warul la ko yàqal toogoo ku gën toog ak rasulullahi toogoo fu gën toog ak gën rasulullahi te ki toog di xadaratul jumaa mook rasulullahi ñoo toog billahi lazi la ilaha illa hu yàlla defal ñu ci dégg ak topp ñu teg foofu sunu baaraam ba dellu siwaat ci darsu fukkeel bi ak juróom incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu